jërë jëf mbokk internet yi ñu nga am mbégte kontaan te bëggalanteeg yéen lépp lu jëm ci wàllu làmb ñu ngi leen di nuyu fi leen daan nuyoo fii ci jàmmaarloo TV ak sunu xalaat TV ku ne yëg na démb bis bu mag la woon lu jëm ci wàllu làmb Baye Ndiaye àndoon ak waa Albura tëggoon journée bu neex vraiment Tapha Tine doon ci bëre ki nga xamante ni mooy Balla Gaye numéro 2. Balla Gaye numéro 2 ñu ngi lay félicité ci ndam li nga am di encouragé ki nga xamante ni moom mooy Tapha Tine waaye nag am ci combat boo xamante ni moo nekkoon combat amateur. nekkoon bu neex combat boo xamante ni amateur yëpp moo leen bàyyi woon stade mu doxoon ci diggante kiriku mooy booy bii ma toogal taay nante la ah moo ko eh, ardo ardo mi nga xamante ni ndeysaan moo bàyyeekoo parcelle. waaye kiriku yàlla dogal mu am ndam ci kanamu ardo Ardo mbër nga champion nga defarwaatal ñëw ci làmb ñu ngi lay encouragé bu baax a baax xale bi ngay bëreel dafa nekk ci yoon nga bëreeg moom dafa am lu muy laaj yàgg nga daan say morom tey nga ñëw bëreeg koo xamante ne xale la fekk la ci yoon bi bëreeg yow daan la ah wàññiwul dara ci yow da ngay defarwaat ñëw bokkaat ci course waaye tey nag maa ngi buuna ñëw fekk fi mafia bi gaa yëpp ñëw toog xam nga di savourer seen victoire kiriku maa ngi lay nuyu di la ziar borom open presse bu neex bi. ah maa lay fay ginnaaw ma sant yàlla ji génn bi sant sama ñaari waajur di wax jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba ñaan Sénégal yàlla na fi jaamu yàgg ñaan Sénégal yàlla na fi jaamu yàgg. ñu caab féetee ginnaaw caab na nag kanam ñu génn àdduna suñu borom xaale àjjana ñu tëj si loolu hôpital yi waaw suñu borom fëgg leen ñu mën a génn quoi di bëggee gaa yàpp di ñëpp di nuyu ñëpp waaw di nuyu gaa yàpp teew yëpp di jégalu dëkkandoo yi waaw dëkkandoo maa leen jégalu bu baax a baax a baax waaw xam naa semaine bi yëpp sonn mi maa ngi jégalu ñëpp ñëpp waaw dëkkandoo yëpp maa leen jégalu waaw di leen baalu hmm. mais démb euh, naka nga dundee bis bi ci côté préparation ndax nga jëloon combat boo xamante ni ki nga doon bëreel moo la jiitu ci làmb tamit di champion coow bari woon ñu bëri ne doo ci euh, favori outsider nga ci loolu yëpp bi nga ko doon dégg préparation mentalement bi. non waaj rek ñu ne ay xale lañ ay xale lañ làmb nekk ñu dañuy waaj làmb ñun waaw dañuy waaj làmb bu aar adversaire la woon kon yeneen adversaire rek waaw maa ngi koy ñaanal jàmm di bu baax waaw di ko wax bu mu décourage quoi waaw bu mu décourage laa mun noonu la waaw ñaari ut mais kenn am quoi waaw xam ne suñu borom man la may ndam di ko wax bu mu décourage quoi na nekkaat si rek waaw ma nekkaat sama yoon hmm. waaw. nga def mobilisation bu am solo. donte démb ticket yi bi gënoon a yomb mille francs la wute na trop ak journée yi nga daan bëree euh, ticket 2000 wala ticket 3000 lan moo nekkoon ci différence bi ci préparation est-ce que tamit amul lu mu woon ci tam côté mobilisation. non loolu dara man gisee booy sama xel day del quoi booy bu ticket jëloon 10 hmm. ah, mën na mën lépp mën na mën lépp booy loolu booy laaj sant quoi ah, bu ticket yi nekkoon 20 000 dañuy dagg dugg. waaw booy laa sonn nag kenn jàppal kenn jëndul leen ticket ñu dugg ñoom ñoo jaayante booy ndaw yëpp waaw seen i six loolu ma leen koy sante ñoom koy sante bu baax a baax a baax bi ñaata combat nga bi def naa trois combat trois victoire saison bi trois victoire trois saison bi waaw ku def trois combat trois victoire ci saison bi loolu yaakaar naa ni euh, performance bu am solo la damay ñëw ak yow ci biir combat bi bi ngeen nekkee ci côté préparation bi ñu gis ardo dongal yi stade bi jóg yow it nga dongonu stade bi jóg ba ngeen duggee ci biir géew bi état de physique am ak préparation mystique am lan nga ci jàngee woon. moo ci jàng man maa xeex ak mooy moo jàpp ba ma ko jàppee xam ne maa ko doole laa bàyyi xeex bi hmm. moo ko ah, kon liggéey kon man hmm. sama laa liggéeyante de. <laughs> xooloo a am loo ci bàyyi xel ak yooyu barke Sëriñ Salim la wax aar ngem bi la ngemboo yàlla mu yàlla mooy yeewu si àdduna. waay waay bàyyi jik liggéeyantewu ma ko sax lu mu indi man sama bopp laa ah, liggéey non maanaam dama xaaf liggéeyantewul quoi moom concerné ma li may nuyu moom a concerné. waa ci seen naam Muhammad billaahi mais moo tax euh, xeex bi gaa yi ne nañ dangaa daw xeex bi parce que Ardo da nga ko trompé ci biir bëre bi ndax seen communication yëpp xeex la woon xeex mais dafa méb rek nga daw yooru boo mënee boo mënee bëre xeex da lay sonal hmm. waaw bëre boo ko mënee xeex coono la booy maa si xeex a kenn hmm. te ku ma si jàpp dama lay daan ku ma si xeex benn booy ku ñëw pour duma la nag ma jàppalaat waaw man ay mbër am ga am ga ay mbër ñëw nañ pour dóor ma eh. mais dama leen jàpp daal leen bëri boo ko mënee xeex da lay sonal xeex coono la eh, ñun ñëwuñu pour ñu làmb ji pour di nekk fii di xeex di dóorante yooyu noonu mm-hmm. waaw bëri lañ mën dañuy wane suñu bopp si làmb incha allah rabbi mm-hmm. waaw bi nga jàppanteeg moom mën nga ma ñëwal ci biir combat bi kiriku pare nga ardo pare na arbitre ne par détaillé ma billet bi pièce euh, kii bi bëre bi pièce par pièce ba site bi ni muy amee waaw ay dafa ay dafa sifflé ay defisil la ma dox si kawam. mu coxaas ma. yaa ngi réer mu mu mu mu dóoraat ma fent nii. nga esquissé. waaw daw jàppante ak moom. waaw daw jàppante ak ni lu koy fàq mu ñëw ko nii. waaw dóor ko plaqué mu dindi plaqué bi ma xaar ko ne <laughs> xale bi daanaan la de parce que li mu wax léeg-léeg mbër daan mbër nga laaj ko noo ko daanee muy laaj gaayam dendal lii moo lay wala ni ah, li mu bëree yaakaar naa ni loo kontaagoon la te loo waajoon la te façon bi ngay bëree tamit dafa mel ni sa mën maa moom lu muy bañ laa ko mu doon daane gaay laa ko daane hmm. waaw doon doon ko mu dojee ko daan la waaw ah, moom lu muy bëree na waaw maa lu muy bëree laaxatuwuma si nëbbatuwuma si moom loolu mëni si laa ko fekk quoi daw ma lu muy bëree quoi hmm. waaw daawu ñu bëre quoi hmm. waaw. mais combat bi tamit vraiment neexoon na trop sa diggante ak moom mais ñu bëri dañ ne combat bi da nga ci préparé préparation mystique bu bu doy waar ndax donte temps bi gars yi canaliser nañ ko mais dégg naa bitéeli yaa ngi koy sotteeku Sokone ba arène nationale lu waral. non ñun dañuy ñun nag caay ñun amuñu la amuñu métier de hmm. waaw. da ngay làmb de. Hmm. saa yi laa mooy sama métier de saa yi. mari fara nga demoon wala fan. sama gars yi fan ngeen demoon ci combat bi léegi naa Ardo bar bi ne par kenn xamul lan nan la demee. <laughs> man dem naa dem naa dem ba sama sama xaalis bu muy amu métier man laa mooy sama métier de saa yi. laa ilaaha lu làmb laaj. waaw yow da koy def. <laughs> waaye amul wax sax barke Sëriñ Tuubaa. en tout cas am na solo. ñu ngi koy encouragé di ko félicité. ndax bi mu fi jëlee défaite. wax naa ko ni mbër nga champion nga. te li lay topp nii mbër bëri na ba bàyyi bëre du ko am say open press pour mu yegg problème la ngir say moroom say rakk say mag yoo xamante ni ñooy ñëw di la jàppale ni nga mel ni man li ma lay diggal mooy bu ko mës a changé nekkal seen baay faal doon seen jaam moo lay may li nga bëgg lu jëm ci wàllu làmb bu la kenn gëmloo succès bu la kenn tàqaleeg say jege ñaale mbër lëlul fii mbër làqatul mbër dawal say gaay loolu du lamb lamb da nga nekk ak say morom di jokkonteeg ñoom xalaat loolu moom mooy lamb ji mais bi nga jógee ci combat bi nag coow yu bari affiche yeeg yeneen yu nu mel sa xel ci kan la dem. man <laughs> wax ma fi nag combat logique nag combat bu jaadu. parce que seet si woon naa la bi nga jógee sa combat bi di tudd ay mbër ay mbër man la est-ce nga ne yàgg ardo mooy làmb ji. Hmm. man man maa fi ndax làmb rek waaw. mais da ngay tudd <laughs> booy kuñ d'accord rek d'accord naa ko. kan ngeen d'accord Siteu bu Ngor mooy booy bi am deux wala. ki Diop daan mooy njool mi. gars yi ne bu Ngor lañ bëgg. man man laaj ma kenn de laaj ma kenn man béy ku mu bëre yow. saa nee na <laughs> daal faa wala këlifa yi. Caatu Daouda Fall. waaw ah. wala Coly Faye. waaw ah. léegi ñëwal ñu benn benn ko après ñu door mu mujjee ci Siteu bu Ngor. Coly Faye numéro 2 moom mi nga xamante ni euh, tarkindaa bu ñuul bi lan nga gis ci moom ba jàpp ne war ngeen a mën a bëri. non man incha allah mënut maa bañ. waaw. Hmm. Ah. Euh, Coly Faye numéro 2 tarkindaa yi de boo duggee seeni i mbir moom sa gars yi lu ñuy kannasu kannasu moom ñoo ñoo leen ropp. waaw Coly Faye Caatu Daouda Fall daal bu ñu ah caatu Daouda Fall sax laa gën a bëgg Coupe Liberté. caatu Daouda Fall a bëgg. waaw mais xanaa seetoonoo caatu Daouda Fall ak Pam Doy wala loolu fekku la Sénégal. <laughs> maa boo fekk ma Sénégal de. <laughs> non loolu kay fekku la si caatu Daouda Fall. waaw Coupe Liberté bi nekk école de lutte Balla Gaye. waaw non kooku nag moo la mën kii. su may tëdd moom laay tëdd su may yee moom laay yeewaale. Eh, soo amee looy wax ak caatu Daouda Fall nga ko te jàkkaarloo moom la. man ku wiri ku wiri wiri tamit nga jaay daal man di ma nangu. Hmm? waaw ñu ma doon bañ yëpp lam sama kanam quoi man lam mhm. hmm? sama kanam ku ma lam boole rek naa bëre yow waaw lam mi sama kanam ku ma lam boole naa bëre yow waaw. mais yaa caatu Daouda Fall xam nga tax muy combat bu doy waar yéen ñaar ñëpp da ngeen di bëree ci gaño te caatu Daouda Fall loo ko mën a dóor dóor bu la jàppee nga wut foo tëdd. <laughs> waaw <laughs> ak gusi yooyu daa am ñu ma koy def hmm? waaw. mais a bu fekkee da nga ko ragal ñu tourner parce que tudd ma ko yaa ko damaa ragal. jaatu Daouda Fall yow yaa ko tudd <laughs> looy wax moom na leer moom. waaw ah, damaa ragal. waaw na jël avance bi pare kon damaa ragal wala dee ba ne ci ginnaawam de. waaw ah, yow. kooku ah, mi ngi nii Modou Lo ma nekk ci ginnaawam. waaw eh. boo ko jàppee dama xaar mais sa digganteeg tamit euh, Siteu bu Ngor mu dugg fi Diop doo daan ko keroog jël naa ko sat introsé ko daa wax sax daanaka bay jooy ngir am lu ko metti biir yëmbal ak biir buun bis bu la yàlla nattoo ba nga jël ko est-ce que la la ciy fekk xam nga. ba ma jël kan. si tëb ngoon. si tëb ngoon ñu ma daan gën a tàng foofu. mais muy xanaa seetaanoo ba muy daan naaru sukaas. ah yow assurance ah, man. ba muy daan bébé bis mi. ah yow ñu muy daan ñu daan ñëpp bañ si toll bañ si toll mun leen daan. Diop doo moo ko daan mais daj na dëgg avant mu koy daan. waaye dëggul dëgg de Diop daal xaaral ma duma ko daan ko rek. mais est-ce que pare nga pour bëre ak moom. ku booy daaxoon rek pare naa fa bëre yow. non sa gars yi ne nañ bëgg nañ Siteu bu Ngor mais yow yaay si meeku ci biir géew bi bëre. ñoom ne nañ bëgg nañ. man nag ba ñoom laa déglu. <laughs> ñoom ngay déglu. waaw ñoom buñ ku ñu pare rek pare naa. waa Ngor Wakaam Yoof Lebu yi bis boo duggee ci seen mbàccum gerte moom sa booy yi nekk ci TikTok bi di wax ak yooyu yëpp dinañ noppi. <laughs> ñi ne si TikTok xam nañ seen bopp ñoom xam nañ seen bopp. bañ egg si. Hmm? waaw. la ilaha illallah. comme Ardo barke yàlla ma rus. <laughs> da ngaa am loo yaakaaroon ci moom te fekkoo ko ci. non laaw ji ma amul moo tax maanaam coow ma bëggoon si laaw ji la amul. Hmm. waaw ci côté communication ah, amul ma fi yaa quoi. lam ma fi yaa laa bëgg quoi. lam ma fi yaa nga bëgg. waaw mais moo tax yaa ngi si tëbu ngor kon baax na parce que tëbu ngor tamit 30 bolok lay teg arène nationale. waaye man booy ñaata bolok lañ gën a keroog démb. dégg naa jeexal ngeen billet billet yi de te te te 6000 la. booy laay booy ñaata ñaata bolok lañ gën démb. ah sama gars yi démb dégg naa ngeen a pare naan dolliwaat <laughs> man laamu lu mu mag mag mag laamu lu ma ngande ngande ngande ngande ngande su jotee nga gis ma mobiliser force waaw bu jotee nga xam ne lii ma maa ko indi waaw te dem position moo teg moo tax mu xaw a demee noonu sax baak Serigne Touba Mbacke billaahi waaw di gërëm Baye Ndiaye bu baax waaw Baye Ndiaye di nga gërëm bu baax di nga sant nga wax naka laa mu jàppale quoi moom mi ngi jàppale ndaw ñu quoi nga gërëm bu baax di nga ja waaw di nga bu baax waaw maa nga gërëm di nga sant bu baax en tout cas li mu wax yaakaar naa ni am na solo c'est un grand champion ah la lu jëm ci wàllu làmb yëmbal buun Kër Masaar bi yëpp ñu ngi koy bàyyi xel ah soo déggee li mu wax nga xam ni ah, pare na pour bëree pare na pour bëreeg ñëpp mook Siteu bu Ngor nag na ci promoteur yi dox combat boo xamante ni gars yi bëgg nañ ko te amateur yëpp bëgg nañ ko dama koy bàyyi kon ah, ah, mu loo xamante ne dama koo fàtte pour laaj la mu wax ko nga sant tamit ñi la jàppale ci combat bi yëpp parce que tamit ñi la taxaw macha allah tamit bari na ah làmb mi ngi lay bàyyi xel nga gën a góorgóorlu yaa ngi ci yoon ba pare tamit nga nuyu Ardo donte daan nga ko nga gën ko encouragé parce que tamit champion la. waaw Ardo maa wax décourage quoi làmb moom noonu la ñaari utu mais am quoi. champion la bàyyi si liñ la billaahi waaw lamb da nga toll foo xamante ni day métti lool mais tamit na defaruwaat rek ñëwaat si lamb xam na xale la lamb am na si cër waaw lamb moom waaw du <laughs> ni ñu ko waxee xaw du biir rek xëy la demee nag. mais fekk nga fa lu dëgër bi ngeen jàppante. kala Ardo man booy ma bu doole la man saa yi man mënu ma tolante kenn doole saa yi waaw nee naa leen digg dëgër gën. Mhm. na mais dara jaan si biir quoi. Mhm. ay doole yi du ay ngande du ay funki ak doole da ngay liggéey waaw man damay liggéey si combat man damay daj si combat yi coono barke Serigne Touba Mbacke man dama caaxaane lamb de mm-hmm. ngay tàggatoo dafa am ci lu ma la bëgg a laaj lu ndaw en tant que mbër Tapha ak Balla Gaye bi ñu doon bëre démb ban jàngat bu ndaw nga ci am ndax Tapha Tine moo doon jël si revanche 2012 wala 2013 la ko Balla Gaye 2 daanoon 2024 ñu dajawaat ban jàngat nga ci am ci combat boobu wax wala amul ay kii nag wax ma rek carrément combat boobu noonu ban jàngat waaye ñëw après dem bëre war na yàlla la kii laaj mën a gérer dem bërëg Balla Gaye wala bërëg Tapha Gaye. bërëg Balla Gaye baax na. ah est-ce que li mu bërëg baax na. ah ñoom waaye. saa yi yow bërëkat nga moo tax ma lay laaj. saa yi ah laamu la rek ñoom saa yi. waroon na taxaw di xool Balla Gaye di ko dóor. ah waaw. Hmm? ah ndax amoon na fi saa yi bëri woon nañ. waaye eh? ah, saa yi yow. du <laughs> ci bëgg a sori ndax mbër la kon dañ lay bàyyi ah nga tàggatoo sant sa gars yi la jàppale yëpp vraiment ci combat bi. waaw gars yi waaw mooy tàggatoo mooy sant gars yi rek ma fi yaabi nii gaan ma fi yaabi teew yëpp maa la ngi sant quoi di leen gërëm bu baax gaan waaw di leen wax gis naa taxaw bi barke Sëriñ Tuubaa Mbàkke taxaw nañu ma si lépp billaa walaay talaay taxaw nañu si yëpp jaante nañu ma si côté bépp billaa walaay talaay lu ma soxla ñu gën a ko jox ma barke Sëriñ Tuubaa dañu may jox a jox ba man damay rus a laaj hmm. barke salaatu fa dañu may jox ba ma rus barke Seydina Muhammad billaa walaay talaay non waaye nooy <laughs> bañee saay <laughs> wër yàlla gars yi mafia bi barki Serigne Touba baax ñu ne ñu sonn si man quoi yee man bu ma doon def bu ma cinq ndax ñoom quoi. waaw ndax dañuy ndax dañuy sonn si man bu baax a baax a baax a baax. non su ma ma benn yëngal bu ndaw bu neex ma xam ne victoire bii am na fu mu leen toll nag bu fekkee est-ce que pare ngeen pour loolu. kirikou et petit l'enfant moo wax leen loolu kirikou et petit l'enfant mon ami waaw waaw kirikou et petit l'enfant mon ami kirikou et petit l'enfant mon ami kirikou et petit l'enfant mon ami kirikou et petit l'enfant mon ami Kirikou Airport Airport yi Kirikou Airport Airport yi Kirikou Airport yi Kirikou Airport yi Kirikou Airport yi Kirikou Airport yi l'enfant mon ami l'enfant mon ami Kirikou Airport yi Kirikou Airport yi Kirikou Airport yi Kirikou Airport yi Kirikou Airport yi l'enfant mon ami merci beaucoup jërëjëf lim def yaakaar naa ne am na solo kon Kirikou ñu ngi lay jaajëfal ah di la bàyyi ah nga kaay nii kaay nii mu kaay nii sëgal looy danoo c'est sëgaleen tuuti. waaw salaamaaleykum gars daa amoon nañu bëggoon dénoncer waala rek <coughs> si suñuy autorité buun yeeg autorité yëmbal yi autorité Kër Massar yi ñun zone bi ñun ay jeunes lañ quoi nekk si yoon de développement te gis nañ ni ñi ngi xaru pour suñu avenir boobu ba tey ñi ngi deew waaye gis ñu benn autorité gisuñu autorité yi ñu ñëw soutenir ñu si liñ si liñ nekkee te ñun ay xale lañ ñun sàccuñu sàccuñu xeexuñu agressé wuñu lu dul sport lañ gëm sport lañ gëm moo tax ñuy sonn kon autorité yi dañoo war a gestu comme yeneen secteurs yi yeneen secteurs yi dañoo am ay ndaw mais seen maire yi dañ leen di jàppale autorités yi dañ leen di jàppale yaa ngi comprendre mais ñun fi yëmbal yëmbal buun gii nii Kër ñun amuñu loolu te dañoo war a gën a gesuwaat tey booy bii nii buy bëre ji day luwe oto oto yi ko topp yëpp dañ koy luwe kon loolu dafay war a dañ ko yaa ngi comprendre te yeneen secteurs yi mbëri dañuy bëre ji ñu débloqué ay oto jox leen jàppale leen gungoye leen tegal leen convoi bu dëgër mais Kirikou mii lu muy am tur yëpp amagul lool noonu lu muy am tur yëpp amagul yenn jàppale te dañ ko war a gestu war ñu ko seetaan tey jii nii ñun fu ñu toll nii ñun ñoo ko xeexal suñu bopp ñun booyee ñun néeri doole yi ñu dara bu làmb amee dañuy sonn lool dañuy sonn lool te bëggoon nañ tamit te bëggoon nañ tamit autorité yi ñu tel ñoo jàppale quoi bala ñoo dem ba si biir ñuy ñëw ñun bëggoon nañ leen teel a gis yaa ngi comprendre mais loolu amuñu ko quoi loolu lañ bëggoon dénoncer ndax booy bi jàmbaar la ku ko xool xam ne jàmbaar xale bu ndaw la waaye jàmbaar la mu ngi góorgóorlu yaa ngi comprendre voilà mu ngi noonu mais nag ngi si yoonu avenir ñu si yoon avenir mais daal di am lu ma dénoncé waat quoi secteur bii nii lu ko dalee yëmbal ba benn baraak lu ko dalee Kër Masaar ba buun ba faas faasu mbaaw ñun ñëpp benn lañ dañoo war a booloo doon benn kon am na yoo xam ne dañ ko war di éviter quoi booy bi xale bu ndaw la yàlla moo dogal mu dëkk fii nii secteur bii nii yaa ngi comprendre ñun moom lañ am gars ñoo koy bëggee tey moom lu mu am nii du si moom liggéeyu ndeyam la liggéeyu ndeyam la tamit waaye jàmbaarteem la quoi waaw kon gaay ñëpp war a mànkoo jàppale ko quoi moo gën yenn yi sew sewaan yi nii di fi am quoi mooy loolu am na solo waaw ah, mbër la champion la soo déggee ni mu waxee mooy bépp mbër bu fi nekk di takk ngemb Kër Massar yëmbal buun bi rek nañ bàyyi xel xale bi di ko jàppale li mu wax lan nga ci dolli bu ñu tàggatoo waaw sant rek sant rek gaan waaw moom wax na lépp lu mu wax am yéen am na yoo si wax quoi ñoom ñoom ñoom si am am na yoo xamante man dama ko ñoom ñoo ko war a wax quoi saa yi wax na lépp waaw te lu mu wax teg na ko si code quoi lu mu wax teg na ko si yoon quoi waaye di tàggatoo di gërëm gërëm yi ma joo xam ne ñoo jàpp si combat bi quoi sama grand Khalifa Lo jàpp na si combat bu baax baax baax baax baax baax waaw grand Ida grand Ida jàpp na si combat bi suñu yaay taale Seck jàpp na si combat bi bu baax a baax a baax a baax bu ba tem max jàpp na si combat bi bu baax baaba baaba TV tamit jàpp na si combat bi waaw Modou Modou tamit jàpp na si combat bu baax moom jàpp na si combat bu baax a baax a baax su grand soleil ba am carrière jàpp na si combat bu baax a baax a baax a baax ak kan waaw di gërëm mafia bi tamit mafia bi waaw mafia yëpp waa Las waa Isdio waa Magdane waa Xayra waa Antanda waa Tulib Bes waa Yëmbal waa Jéggi Saaxo mafia faxas joxas bi yëpp maa lañ bëggee di bëggee mafia bale treize bu baax a baax a baax waaw ñoom ay jàmbaar lañ ko waa son nañ si combat bi lool waa ñaax wala Baye Ñaax yëpp maa lañu bëggee tamit waa Funa waa Masfa Dumbuya waa ñag waa Mamilor waa Jaxaay waa Seras tamit maa lañu bëggee bu baax waa Tivaouane Peulh Soxna Bek maa ngi bëggee waa Fass la tamit Pape Colobane di bëggee ñëpp di nuyu ñëpp di bëggee képp kuy bëggee Kédougou maa ngi lay bëggee bu baax a baax baax Baboy Omar Omar Omar Sarr jàpp jàpp na si combat bu baax a baax a baax a baax jàpp na si combat di bëggee waa ñaax waa Mafia place xaar yëpp maa lañu bëggee Galas sama grand Galas tamit jàpp na si combat bi grand Moussa tamit jàpp na si combat bu baax sama di yaay Talla Fall jàpp na si combat bu baax a baax a baax ñoom kan ñoom baagay waaye baagay gay baagay tamit jàpp na si combat bu baax yëkkati na si xaalis bëri jox ma ko quoi di bëggee gars yëpp di bëggee ma fi yëpp di nuyu ñëpp di kontaan si ñëpp quoi waaw di la wax ñi ama seen fay quoi sama grand jiba borom fara ay Fallou Fëgg ah waaw gars yi jàpp nañu si bu baax a baax waaw waaw di bëggee gars yi di bëggee waa Los di nuyu bu baax di bëggee waa Mafia Balla Treize tamit waaw di bëggee Mafia Balla Treize bu baax a baax a baax di bëggee sama boy yi gars waaw son loolu ba ba léegi ñooy fanaan fii nii si buntu kër yi quoi parce que sëñ Tuubaa di bëggee waa Morola bu baax waa Morola waa Daga waa Morola tamit jàpp nañ si combat bu baax a baax baax a baax baax baax si sëñ Tuubaa Mbàkke tamit waa Mbuur papa yi ñaar tamit jàpp na si bu baax a baax a baax wala sëñ Tuubaa jàpp na si combat bu a baax a baax di gërëm suñu yaay Mati Njaay tamit son na si combat bi waaw ñoom sama sama yaay tamit son na si combat ñoom Seefaal ñoom Sukay ñoom Jeela ñoom Awa ñoom ñëpp waaw son na si combat bu baax a baax a baax ñoom wëri ñëpp sonn si combat bi yaay tar ñoom kii père borom tamit sonn si combat ay ñoom Fassar yaay Fassar tamit Fassar maa ngi koy di bu baax jàpp na si combat bi sa combat da siy jàpp quoi bu baax a baax a a baax a baax ñëpp di nuyu ñëpp quoi di kontaan si ñëpp ah waaw ñoom Mor Morou tamit jàpp sonn si combat bi bu baax Mor sonn si combat bi ñu mu doon ñoom Fallo bu Fass gaa yëpp sonn ci combat bi quoi di bëggee mafia bi yëpp képp koo xamante ne nga taa nga sot si si si lii rek ma di bëggee tamit waa di nuyu waa comico bu baax di leen bëggee bu baax di kontaan si ñoom commanda comico maa ngi koy bëggee bu baax di ko nuyu di ko wax kenn damaa rek di ko jégalaat bu baax a baax a baax waaw di leen wax jàpp nañ si démb waaw jàpp nañ si bu baax barke Serigne Touba Mbacké bu dul woon waaw ah, di bëggee ñëpp di bëggee waa yëmbal tamit ma fa yaa booy jóbeeg yëpp waaw ñoom ñëpp ñoom rëm ñoom petit ñaa suñu waa arri tamit di leen nuyu bu baax di kontaan si ñoom suñ ko su Thier mention spéciale kooku amuñu fayam kooku mënuñu ko fay léegi quoi di kontaan si yéen di kontaan si ma fa yaa yëpp daal di nuyu ñëpp gaan waaw di wax ku mu tuddul rek xel day fatu quoi waaw di nuyu ñëpp bëgg naa nga wax sa fans yi nag ñu abonné Jàmmarloo TV abonné suñu xalaat TV ndax ñaari seen yi bokk nañ ci ñi nga xamante ni lépp looy def lu jëm ci wàllu làmb open press sa génn bi keroog gis nga Souleymane mi ngi fi woon saa daanee dañuy ñëw jël si la gars yi tamit dañuy abonné di jàpp ci abonnement yi bu baax parce que lool tamit moo ñuy jox courage waaw gars yi nañ abonné kay loolu saa yi li nga wax ni jar wax la waaw message bi gars yi dañ ci la ndax gars yéen yéen son si ñun quoi maanaam yéen yéen mën a yéen mën a son si mbëri ndaw si mbëri ndaw yi quoi yéen ñi mën a génne yéen mën a jàppale di wax gars nañ abonné waaw si wax fan si kii gu yëpp. bu duggee lii bu duggee lépp ñëpp ay abonné incha allah rabi. maa koy jël partage ko ñëpp ñëpp abonné force. waaw sa abonné ba la. ayca <laughs> jërëjëf mbokki jàmmaarloo TV mbokki sunu xalaat TV nii la demee woon ah ak kiriku saa yu mbër bëree ba pare rek daal di daan dinañ ñëw jël si ko ah wane ko gën a xamal li nga xamante ni mooy topp ci ginaa autorité yi nekk yëmbal buun kër Masaam nañ ko jàppale xale bi mbër la champion la lenn rek moo ko desee muy jàppale parce que lépp lu moromam di def ci làmb ci bëre ci xeex ci mobilisation daf koy def ni la demee woon ak seen xarit seen doomu day njagastar maa nga nuyu sama waa kër sama sama waa kër bàggeen waa HLM sama bàggeen ummi maa ngi ko nuyu bu baax nuyu sama bàggeen yëpp hmm. waaw di gërëm bu père bu roxaan tamit sama papa bu maa ngay gërëm bu baax di gërëm Mansour doomam bu baax a baax a baax a baax a baax Mansour maa nga gërëm di gërëm Père Boudaxaan gis naa taxaw di gërëm sama ménagère VFL waaw ah, moom kenn du moom kooku day son si man quoi kooku daa war a dawal oto hmm. barki Serigne Touba ma xaa war a dawal Belvier daa war a dawal oto am kër bu mool te si man la ko yaakaar hmm. waaw yéen bi na àgg quoi di bëggee sama waa kër bàjjan sama waa kër bàjjan waa HLM maa lay nuyu baax nuyu sama kër sama waa papa ñoom ñànk ma fi boobu yëpp maa ngi gërëm ñëpp grand Dakar bi maa ngi bëggee ñëpp di nuyu sama kër bàggeen bu baax bàggeen ummi maa ngi nuyu bu baax di jël nuyoo bi di nga teg sa loxo ma famille bi yëpp waaw mais la sama anniversaire tey tey mooy sama anniversaire yaa sa gaay nga ñëw ma sang nga ñëw ma sang la <laughs> joyeux di la wax loo mën ren. waaw diwoon yàlla nga mën lu ko ëpp yàlla nga dund dund dund ba dund sàppi la. nga dee dem àjjana yàlla nga dund ba yàlla xaaral ma. yàlla maa fàtt. Eh. waaw yàlla na fi yàlla ba bañ. sa xarit Abdourahmane na si combat lool seex Cheikh bu Guédiawaye tamit sonn nañ si combat mag borom daanu barki Serigne Touba Mbacke borom daanu ak lu ak lu mënul jaay nañ si barki Serigne Touba Mbacke di bëggee ñëpp ñu sonn si combat bi di bëggee Mora maa ngi koy bëggee bu baax Fallou la ñu bëggee gars yi mu doon naa ah, via yom miiru gars bu waaw ay ca mi ngi noonu yi kon mi ngi noonu ñu joxante dig daje ci Jàmmaarloo TV suñu xalaat TV jërë ngeen jëf